daanaka notable lébu yu Ngor Wakaam ak Yoof ñoom ñëpp ñoo ñëw ca bopp ba Cheikh Mansour Diouf seet si nag ki di président bu groupe Futur Média yu Ndour ngir mu dugal loxoom ci cérémonie bu mag boobu nga xam ne ñoom dañuy jël seen àddiya daal di koy dugal ci tabaxu jumaa ju mag ji di Masaalikul Jinaan nekk fii ci Ndakaaru ah, ñu ñëwoon seet si ko ngir di ko yëgal xew-xew bu rëy bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy waaj. muy communauté lébu bi dëkk fii di waa tànk di waaj jël seen i xéewal seen addiya leen yàlla may seenu ñaq dugal ko ci jumaay sëñ Touba ji nga xam ne Cheikh di Motar mi fii sëñ Touba dane ku ci raw raw comme lébu yi nag ñoom dañoo mas a raw dañoo bëgg di raw ci lu bees lii comme moom nag lébu la ndax ku duloo Dakar màggee fi yaroo fi dëkk fii lébu nga am mbégte lool moom président Youssou Ndour li ko gën a neex sax moo nekk jamono ji lébu yi ni ñu àndee ma kontaan ci nag euh, ndax boo gisee jafé jafé yu baré yu am ci gox bi ndax kuy xey di liggéey si wala ku dëkk fi di nga gis jafé jafé yi léeg nga gis ay jamarlo waye lolu bo gisé mu andat dal tay lii rek moko waral andado don ben te Cheikh mang ngi lay gëreum di la sant di la encouragé ci taxaway bi nga taxaw. ñom lébu yi nak ñu bëgg nak taxaway bu mag bu groupe bi waye ki di président bu groupe future media ci téwaayu directeur télé bi di Ndiaga dalal seen xel. kon lépp lu ñuy def ci yoonu sëñ Touba moom da cee war a bokk rawatina bu ko ay mbokkam di dox moo tax déjà groupam bi mettre na ko suñu disposition nee na ñu ci bëgg nañ ko jël comme ni mu ko defee fépp ni mu koy defee ci këru diine yëpp. Euh, yàlla dafa def GFM nekk fii ci goxu Ngor. Hmm. maanaam ci collectivité bi nga xam ni que moom la ñu bokk ñun ay lébu lañu hmm. kon kër gi wax naa leen ne moomatu ko kër gi ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñu am nag événement boo xam ni événement bu réy la muy événement euh, boo xam ni que Serigne Touba moo ñu ko baaxee ndax Masalikul naan bu juddoo euh, tey communauté lébu bi ne du des ginnaaw lépp loo xam ni participation dañ koy indi ñëw seet suñu war nañu ñu jël nag disposition yépp maanaam groupe bi mën a taxaw pour que feeñ boobu nga xam ni que dañ ko war a feeñal événement bi ñu def ko ba mu mat sëkk. notable lébu yi tamit di ñaan ministre njiitu réew mi waaye ci tontoom dalal na seen xel. wax naa leen message ba message bi moom mooy incha allah dina ci dugal loxoom te di ngeen toog waxtaan di ngeen xam ne que yéen a bokk fu ngeen jëm.